fekk muuru jant boo weesoo wetar ak julli koriteeg tabaski mooy gën a dëgër ci julli sunna yi moom jullik muurug jant nee nañu moo gën a dëgëru jullik mbaaw te it moo ko ëpp tuyaaba moom nag ñaar ràkk lay doon waaye wuute naag ràkk ya nga xamoon ndax benn ràkk bu ne day am ñaari taxawaay ak ñaari rukkoo yaquumu dana taxaw bil baqarati jàng saaru baqara da cee teg wa yax nii tamu rukkoo fekk mooy yax nii bi fi dana sëgg rek waaye rukkoo la ci jublu xadraha kem yàggaayu jàng saaru baqara boo defee wa yax nii nim bind nag dee su mën a peese way wi bala ñoo mën a peese way nga dagg waaw gi ci wayax nii waxtaani ñaareel ba bil ximraani nekk na ci saaru ximraan yarkaaw dan rukkoo it nax waxaalu tolloog jàng saaru aali ximraan dañoo sopp ràkk bu jëkk bi bu jàngee faatiha mu teg ca saaru baqara bu saar wa jeexee mu sëgg rukkoo te yàgg ci rukkoo ba nam yàgge woon ci jàng saaru baqara wa nga xam rukkoo ba du jàng day sàbbaal rekk waaye nag da ciy yàgg ci rukkoo ba ni mu yàgge woon ci jàng saaru baqara bu siggee ci rukkoo ba ba wax samihallahu liman xamida mu daldi jàngaat faatiha ñu sopp mu jàng saaru ximraan wësës ca baqara bu saar wa jeexee mu sëgg rukkoo te yàgg ca rukkoo ba ni mu yàgge woon ci jàng saaru ximraan wa nga xam ne rukkoo bu ne dañoo sopp mu yàgge ne taxawaayu saar wa ko jiitu woon taxawaay bu ne moom faatixa day jiitu ci mboolem ñaari taxawaay yi faatixa day jiitu saar wa door caa topp dañu bañ mu defee ne taxawaay bu njëkk bi rek mooy am faatixa waaye taxawaayu ñaareel du am faatixa axakay ñaari taxawaay yépp dañu am faatixa wa atil na nga yàggal sajda tey xaa ñaari sujjóotam moom ràkk boobee kar rukkoo xi ni ki rukkoo ba ràkk bu njëkk bi ci nga tolloogun boo àggee ci ay sujjóotam dangay yàggal ñaari sujjóot ya ba yàggee ne rukkoob taxawaayu ñaareel ba mel ne sujjóot bu ne nga yàggal ko na nga yàggale woon jàng saaru ximraan war rak xatu ràkk ba al uxra ba ca des xalaa zal manxali nekk na ci kaw wile yoon boo demee ràkkab ñaareel ba moom it ni bu njëkk bi lay mel day am ñaari taxawaay am ñaari rukkoo dañu sopp nag boo jàngee faatiha taxawaay ba ngay njëkk a taxaw ci ràkkab ñaareel bi boo jàngee faatiha nga jàng ca suuratu nisaa ma sësoon ci aali himraan taxawaayu ñaareel ba ci ràkkab ñaareel boobu nag nga jàng ci saaraw ci sës mooy maayida moom lay wax naa fa fii xiyaa mayha nekk na ci ñaari taxawaayam ya an nisa suuratu nisa wal maidatu ak al maida ràkkab ñaareel bi ñaari taxawaayam da nga ciy jàng suuratu nisa ak maida mooy taxawaay bu jëkk ba gannaaw faatiha suuratu nisa taxawaayu ñaareel ba gannaaw faatiha almaida nga bañ a fàtte nag rukkoo bu ne di yàgge ne taxawaayu saar wa ko jiitu walhamdu faatiha it saaidatun aji yokku la fii kulli rukkoohin ci bépp taxawaayu ñaareel rukkoo day firi rukkoo rek waaye dafay jublu taxawaayu ñaareel bu ne ci ràkk bu ne da nga ciy jàng faatiha na nga jàngi woon faatiha ci taxawaay bu njëkk ba niñ ko waxe woon léegi dañu bañ nga yaakaar ne taxawaay bu njëkk ba boo ci jàngee fatiha rek ba teg ci saar wa nga cay teg boo rukkoo ba siggi da ngay jékki-jékki daal di jàngaat saar te bañ caa boole fatiha ah kay fatiha ji da nga koy baamu ci taxawaay bu ne ràkkam ñaareel bi itam bu àggee ci sujjootam da nga leen di yàggal ni nga xam ne moom nga yàggale woon saar wa nga mujj jàng te mooy maida warafu siggi ga lil xiyaami ñeel taxawaay ba wal jël saati ak jataaya ka saairi salaati mi ngi mel ni mboolem julli ga fil xay aati ca melo ya tey bañ nga defe ne buñ yàggalee taxawaay yi yàggal rukkoo yi yàggal sujood yi léppi julli gi itam noonu la war a yàggee mel ne boo siggee ci rukkoo mbaa sujood da nga yàgg ci siggi ba wala boo toogee diggante ñaari sujood ñi da nga yàggal toogaay boobu déedéet boo siggee ci rukkoo mbaa sujood ak boo toogee diggante ñaari sujood doo ci yàggal dara na nga ko miine woon rek ci julli noonu rek nga koy defee boo siggee ci rukkoo ba ba wax rek sami allahu liman hamida bu dee ilimaan bu dee maamu mu wax allahuma rabbana walakal hamdu noonu dong lay toll buñ siggee ca sujjóot ba it diggante sujjóot bu ne ak moroom ma nam daan toll rek lay toll diggante amuñu yàggal nga seetlu itam ne yàggal gi ñu yàggal taxawaay yeeg rukkoo yeeg sujjóot yépp itam ak sopp la te it ci kaw waxtu wa yaatu nga xam ne jàpp nañ ne mën nañoo yàggale noonu te du tax muur jant bi muriku te it mbooloo mu ànd ci julli ga duñ am lor ca yàggaayu taxawaay yaag rukkoo yaag sujjóot ya buñ ca ragalee loolu rek say boo ñu woyofal nañ ko mëne rek bañ a gaañ kenn kenn bañ ca am lor moo tax sara bi naa wa maxallu nad bi tatwili allazi alimtahu an yattasiha alwaqtu wa lam yadurra bilmusallin wa illa bi an xiifa zawalu shamsi qabla alfaraaxi minha aw kaana yadurru altatwilu biman xalfa alimam fa innahu yuxafifu ma amkan ويراعى في ذلك أحوال المصلين واتساع الوقت وعدمه وتدرك دفن جوت الركعة ركبة بركوه جركوبة الثاني بي أجي ناريل مثل الأول كم أجي يكج الموضوع جري جنو ترل dafa wax ne nag nagam ràkk bu ne am na ñaari taxawaay am ñaari rukkoo rukoob ñaareel ba boo ko fekkee rek dal ngay am booba ràkka dañu bañ nga defee ne faaw da ngay fekkee rukoo bu jëkk ba ca ràkka boobee doora limaale booba ràkka rukoob ñaareel ba moom boo ko fekkee rek booba ràkka xas nga ko am ba noppi moo nga fekke woon rukoo bu jëkk ba ñooyemoo moo tax mu ne mislul awwali al mawduu nga xam ne ràkk bu jëkk ba moom boo fekkee rukkoowu ñaareel ba kon julli gi dara rawula ca ndax ndegam ràkk bu njëkk bu fekk nga rukkoo ñaareel ba rek am nga booba ràkk kon boo ca boolee ànd ilimaan bu ñaareel ba dara rawula ràkkab ñaareel ba itam boo fekkee rukkoob ñaareel ba rek ñàkk fekke rukkoo bu jëkk ba du tee ñu jàpp ne am nga boobu ràkk muy ràkkab ñaareel bi da ngay fay rek ràkk bu jëkk ba gannaaw bu ilimaan sëlmalee bu ilimaan sëlmalee ba ngay fay ràkk bu jëkk ba itam ràkk bu jëkk ba ñaari rukkoo rek nga cay def doo ci def ñetti rukkoo ndax di wax ne rakkab ñaareel ba ma fekke woon benn rukkoo laa ci fekke woon te ñaar rukkoo moo ci dëkk kon daay fayaale rukkoo bu ma rawoon ci ràkkub ñaareel nga xam mu mel ne kon nga war a def ci ràkk bi ngay fay ñetti rukkoo déedéet dañuy jàpp ne ràkk bu jëkk ba rek moo la raw moom ngay fay defal ko ñaari taxawaayam ak ñaari rukkoom rek moo tax boroom sarabina wa in adrakahu fi tani min al axirati wa qaama li qadaai rakahati al ula fala yati fiha illa bi rukuaini faqat wala yutalabu bi qadaai rukuhi althalisi allati faatahu maa al imami fi rakahati althaaniya ala al mashhur wa waqtuha waqtoom kal xiidi mi ngi mel ni waxtu wa xiid wa day door a wax nag waxtu jullik muurug jant mu ne mooy waxtu naafila dagane rekk ndax loola lañu waxoon ne mooy waxtu jullik korite tabaski bu jant bi fenkee nag bu yëkkatikul toll ni ab xeej xeeju arab it dara toll ne fukki sebre ak ñaar xëy na du sori ñetti meetar jant bi fenkee bu yëkkatiku ci sa xoolu bët lu tolloog ñetti meetar rek mooy waxtu daganuk naafila yooyu jamono nag la ca dale ba tisbaar bu fi jant bi muuroo daañu julli julli gi ñu wax waaye jamono yi muy fenk te lépp génn gut dañ ne woon araam na ku ca naafila kon yooyu jamono bu dee fenk rek lépp génn gut mu muuru kenn du julli bu lépp jant bi génnee te yëkkatikoo gut lu mat ñetti meetar it dañuy sib ku julli julli muuru jant gannaaw bu tisbaar jàllee itam mu door a muuru day fekk waxtu wa jàll kenn du julli waqra na nga jàng sirran ci ak yelu laa xutbatan di xutba fiiha muy nekk ci moom walakin waaye zajran jàjjuk jaami yàlla yi rekk jàjj xutbaate jullik muuru jant kat dañ koy yelu ndax moom amul xutba julli gu am xutba moom la ñuy biral ni ki korite ak tabaski waaye julli muuru jant amul xutba moo tax am njàngam dañu koy yelu sopp nañ nag buñ jullee ba noppi ilimaan ji waar mbooloo mi soñu leen ci ragal yàlla di moytu lépp lu yàlla bëggut tey góorgóorlu ci lépp lu yàlla bëgg watal samu dana war al muqiima aji sax ja wal musaafira ak aji tukki ja wa kulla di baadiyatin ak képp kuy boroomuk dëkki àll wa xaadiran ak aji dëkke taax jullit nuuru jant moom képp ku ñu digal julli rekk digal nañu la nga def ko bu dee mu kàllaf nga xam ne julli war na ko kon jullit nuuru jant gi sunna la ci moom bu dee gone nga xam ne julli waru ko du tee ñu sopp ci moom jullik muurug jant gi moo xam kooka dafa dëkke taax mbaa dafa dëkke àll mbaa dafa nekk kuy tukki wala tukkiwut moom daal ci ñépp la ñuy sàkku ñu def ko bu dee ci fu mbooloo nekk tam am jàkka ñu bëgg ñu defe ko ci jàkka ja bu dee foo xam ne amul jàkka nag mën nañu ko jullee kenn kennoo war raabixu ñeenteel ba istisqaa unaa mooy sunu jullik mbaaw ka shafxi mel na safaa li shurbi ngir sàkku ndoxum naan wal muxtaaji ak aji aajowoo aw li zarhi wala ñeel mbay day jàll si ci jullik mbaaw jullik mbaaw julli la gu ñuy julli ngir ñaan yàlla mu xeet li jaam ñi may leen ndox suñ aajowoo ndox rek moo xam doomi aadama yi ci boppam ñëw bëgg a naan wala seeni tool moo maral wala seen wu jur ñoo maral moom daal ku aajowoo ndox rek mooy def jullik mbaaw gii li mu ne kachaf yi mel ne safa daanaka xaw ko woon a jar ndax mook safa liñ nuroo rek mooy doon ñaari ràkk te ñu leen di biral nde sax bokkuñu lu ñuy jàng ci ñoom lañuy jàng ci safa moom mooy ràkk bu jëkk gannaaw fatiha sabhisma rabbika ràkkab ñaareel gannaaw fatiha xul ya ayuhal kaafiroon te moom mi nag moom saar yi ngay jàng ci jullit korite mbaa tabaski rek lañu sopp nga jàng ko ci moom kalaxi di mu ngi mel ni ki axit fil waqti ci waxtu wa xalaa kullil waraa muy sunna ci mboolem mbindeef ya wal xutbatayni ak ñaari xutba ya fastaxfiran na nga sàkku jéggulu fiihimaa ci ñoom ñaar waxtu yi moom mook korite tabaski ñoo ko yemle mooy waxtu naafila dagane la ca dale ba tisbaar waxoon nañ ko léegi moom nag ñëpp rek lañuy ñuy sàkku ñu def ko moom jullit mbaaw ndax ñaan yàlla yàlla may leen ndox gannaaw bu ñu sëlmalee ñaaru rakka ñi ilimaan day xutba ñaari xutba yu mel ne yam daan def ci korite ak tabaski li ñu wutee nag mooy dañoo sopp ci xutba yi moom muy sàkku njëggal te bañ a kàbbar bu dee xutba yi xiid ya te daa kàbbar fii nag moom day jéggalu te bàyyi kàbbar ya nga xam ne xutba yi bu ci nekk da koy tàmbalee ak jéggalu te ci biir xutba yi itam muy bari la sàkku njéggal ci borom bi ñaan yàlla jégal ko moom ilimaan ak mbooloo ma ñuy sopp balaa tàmbali benn xutba ci ñaari xutba ñi mu baamu astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah bu nekkee ci biir xutba itam noonu di baamu jéggalu googu ñépp daal lañ bëgg ku ko mën rek mu teewe jullit mbaaw gi ba ci gone yi nga xam ne am nañ yeewu teg jaamu yàlla it ak màggam jigéen ñëpp bëgg nañ ñu teewe ko kenn ku ne nag booy génn da ngay bàyyi sa yére ya nga daa waaje te sol yeneen yoo xam ne du yére waajtaay de sax taamuñu ñu ngi koy defee ci yenn béréb yi jigéen ñi génn ba noppi sol yére góor góor ñi itam sol yére jigéen loolu aada rek la waaye dañoo taamu kenn ku ne sol yére yoo xam ne daal du nekk yére yi waaju du nekk yére yi waajtaay ndax toroxlu ci kanam borom bi wane ak lottam ak lorom ju metti ndax yàlla may leen yërmande sotti taw ba jullit mbaaw moom saar ya nga daa jàng rek ci jullit korite ak tabaski lañu sopp nga jàng ko ci mooy ràkk bu jëkk bi gannaaw fatiha sabbisma rabbikal a'la ràkkab ñaareel gannaaw fatiha wa samsi wa duhaha nga bañ a fàtte ne kàbbar ya nga xam ne moo daa am ca julli korte tabaski amul fii fii moom kàbbar ya nga xamoon ci julli rek muy kàbbaru armal ak kàbbaru sëgg siggi rek moo ci am bu dee julli mbaaw itam bu ilimaan jullee bay xutba dañoo bëgg rek mu taxaw fi suuf te su fekkee foofu am na minbar mu bañ a yéeg ca minbar ba te taxaw rek fi suuf ndax moo gën a wane ak toroxlu warudda na nga delloo madlamatan tooñaange wa tub te nga tuub ijaaban ci ak waral wa sumte nga woor salaasan ñetti fan qablahaa ci njëkk dem ci jullig mbaaw ga istihbaaban ci ak sopp day wax ne bala ñoo dem ca jullig mbaaw ga war nañoo baloxante àq delloonte tooñaange moo xam tooñaange alal la moo xam tooñaange yi yàq ab der la nañ jéglu xante seen diggante ba seen diggante set yàlla kon jéggal leen loola yombal mu xéewale leen ndox mi ñuy sàkku ñi sopp itam ku ko man nga woor ñetti fan bala ñoo dem ca jullit mbaaw ga waxawul na nga wëlbati lir yi daa ñeel làmbaay ga lir yi daa baadal faraax yu ci gannaaw noppi ga walaatu na kiste bul jat ilimaan ji bu dee xutba day jàkkaarloog mbooloo mi ñu sopp nag bu xutbaa ba àggal mu wëlbatiku jublu xibla te mu wëlbati làmbaayam moo góor ña nga xam ne ñoo fa nekk kenn ku ne wëlbati làmbaayam wëlbati gi mooy la nekkoon ca mbaggum ndeyjoor dañ ko yóbbu ca mbaggum càmmooñ la nekkoon ca mbaggum càmmooñ ñu indi ko ci mbaggum ndeyjoor te bañ a jot di ca gaat nga yàlla wëlbati bekkoor bi te indi xéewal ak naataange li mu ne te buñ jot làmbaay nag jatt gi mooy jat li nga xam ne moo féete woon ca suuf ñu féetale ko ca kaw jat la nga xam ne nag moo nekkoon ca kaw ñu féetale ko ci suuf loolu mooy jatt gi moom la ñuy aaye làmbaay ya ñu daan amee ñoom wëlbatee ko nee nga déggoon lu yomb lay doon bul defe ne daa jafe bokkut ak lu mel ne kaalaak sarbet rekk bu ñu wëlbatee nag làmbaay yi ilimaan sax ca noonee di ñaan maamoom ya it di ñaan ak wax amiin te jigéen ña bañ a wëlbati ñoom seeni làmbaay moom lay wax naa wan nisaa jigéen ña laa tafxal duñ ko sañ a def xëy na cosaan la doonoon laa tafxalu wayu tax mu maas laa taf xali mbooloo mi dañuy toog nañ tooge woon te góor ñu wëlbati seen làmbaay ni ñu ko waxee moom ilimaan tom wëlbati làmbaayam ni ñu ko waxee mu taxaw nag di ñaan mbooloo mi wax amiin moom day taxaw ñoom mbooloo mi nañ tooge woon rek lañuy tooge muy ñaan nag ñuy wax amin rek jigéen nag du sañ a wëlbati ak làmbaayam bu fekkee ne su wëlbatee làmbaayam awraam feeñ wëlbati ga day araam su fekkee ne wëlbati ga du tax awraam feeñ mu doon lu ñu sit baabu shuruti salaatil jamaahati lii mooy buntub sarti jullit mbooloo wa shurutil imaami ak sarti ilimaan wal ma'moomi ak maamoom day wax ci bunt bi nag jullit mbooloo luy àtte baag ay ngëneelam ak sarti kay jiite ak sarti ka nga xam ne moom la ñuy jiite wa iqaamatul jamaahati taxawal mbooloo ma bi fardina ci sunu julik farata sunnatun sunna la wa wajabat te war na moom mbooloo ma mbaa taxawal mbooloo ma bil jumhati julik jumaa julik farata gu bokkut ak jumaa ñu julli ko def ko mbooloo te bañ koo kenn kennoo sunna la su dëgëra dëgër bu julli ga doonoon julli gu raw ñi di ko fay itam ndegam faratal rek sunna su dëgër la ñu julli ko def mbooloo te bañ a kenn kennoo dañu wax ni sax dëkkub lislaam bu ne moom faaw rek warees na faa saxal jullik mbooloo goo xam ne dañuy xam ne saxal nañ ko fa dëkkul islaam boo xam ne mbooloo mel noonu du fa am daje di julli benn yoon war nañoo xeex ak ñoom jàpp ne rek seen lislaam daa warut dañuy wax naa wahiya fardu kifayatin fi kulli baladin wa yuqaataluuna alayha bu dee julli sunna nag mel ne jullik korite ak tabaski ak jullik muuru jant ak jullik mbaaw julli ko mbooloo sunna la ca mënu caa ñàkk mel ni sax balaa sunna saa mat ñu julli julli yooyu julli mbooloo ba mu des watar watar moom mbooleem julli sunna yi moo ci gën a dëgër waaye bañ koo def mbooloo moo ci gën safa ak watar ak fajar moom julli ko kenn kenn moo ci gën taamu lu may nag dañuy julli naafilay weeru koor nga xam ne ilimaan ji bu noppee ci ràkk yi da koy tëjee safa ak watar kooku moom mbooloo ma daañu ànd ak moom ñu def mbooloo safa ak watar ga waaye bu dul loolu rek safa ak watar ak fajar moom kenn ku ne julli ko moom dong moo gën julli ko def ko mbooloo mën a jullee ca mbooloo ma nag ba noppi bañ caa dem du tee sax boo jullee dong mu baax ndax la yonante bi ne laa salaata li jaaril masjidi illa fil masjidi ku dëkk jàkka du am julli bu demul ci jàkka ja dañuy jàpp ne da caa jublu ne du am julli ga gën a mat ga gën a baax waaye du tee nag mu am julli ndax ba mu nee julli mbooloo gëne na julli kenn ñaar fukki degare juróom-ñaar ca la ñu xamee ne julli kenn itam kon mat na te baax na ndax bu fekkoon ne ku julli yow dong doo am ak julli kon ku baax ki du jekki di wax naa jullik mbooloo gëne na julli kenn nangam ci ab lim bu fekkoon ne ku julli yow dong doo am julli dañu xam ne rek doo am julli duñ jekki di wax naa jullik mbooloo gëne na kon nangami yoon ci la ñuy xamee ne kon julli yow dong du tee julli ga baax waaye daal dañuy ñaaxe lool di soññe lool ci di dem ca mbooloo ma rawante na ci jàkka ja ndax gumba googee ñuy wax ibnu ummi maktuum dane woon yaa rasulallahi innahu laysa lii qaa'idun yaquudunii ila almasjid fa sa'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an yuraxisa lah فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب أبو هريرة موني gumba googu di ibnu ummi maktoom dafa ñëwoon ci yonante bi ne ko man day gumba laa goo xam ne oomu ku ma wommat andi ci jàkka ji mel ni sax boole na ci waxaale yoonu jàkk ji nim amee ay gàllankoor yu bare bari ci bu fekkee doo gis mu ñaan yonante bi kon mu may ko mu jullee rek ci néegam te bañ ñëw ci jàkk ji yonante bi da koo njëkk a may ne ko waaw yow mën ngaa jullee ci sa néeg waaye gannaaw ba ba mu demee bay dem mu waxaat ko ne ko ah da nga dégg noor dëggee mu ne ko waaw danaa ko dégg kay mu ne ko kon nag ñëwal rek wuyu si woote bi naafile yi weeru koor yi itam ak julleeg néew dañ caa sopp mbooloo ndax bu ñu ko kenn kennu rek moom naafile ak weeru koor day mel ne kon joxuñu ko àqam moo tax bëgg nañ ñu koy def mbooloo addis ba sax day wax ne boo àndeeg ilimaan ja ca naafilak weeru koor ga ba mu sëlmal ñu bindal la tuyaabay ku fanaanee julli mboolem guddi googee teewul nag bu dee ci yoonu maal dañuy wax naa su fekkee ne soo beroo yow rek def ko du tax nga taayeel te it doonoo kilifa goo xam ne boo demut li ëpp ci mbooloo mi bu ñu dem kon yow nga beru def ko moo gën nga dem ca mbooloo ma yeneen xeeti naafile yi ci des nag mel ne li ñuy wax àllarbay kare ak julli gi ñu julli ci bésu tamxarit ak yu mel ni yooyu gannaaw bu ñu tegee fee wax yañ cee wax ci wàllu sax na ci sunna wala déet